mbokk yi jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix daleen ak jàmm ci l'édition du soir ni ñu koy defee bés bu nekk ci waxtu wi la ñu ànd di waxtaan ak yéen ci wàllu actualité li ci gën a fees tey daf ci bokk rek li nga xam ne moom lañ tuddee rapport Freedom House 2020 nga xam ne dañ ko génnee wax ne Sénégal mi nga xam ne dañ doon kañ démocratie ñu ne nag jamono yi euh, boo doon wàññi sax réew Afrique yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a euh, siiw ci wàllu démocratie mën nga cee wàññi fukk yoo xam ne Sénégal du ci bokk dinañ ko waxtaane léegi waxtaane tamit li nga xam ne moom la tubaab tuddee discours ethnique wala ethniciste bi nga xam ne moom la ñu tàmbali di seetlu euh, ci yenn ñi nga xam ne ay responsable lañ ci réew mi waaye tamit ay journaliste ñoo xam ne dañuy dem bay bind di wax yu ni mel lan moo ko waral dinañ ko waxtaane léegi léegi ak suñu ay chroniqueur dinañ waxtaane tamit li nga xam ne mooy mbirum euh, Déthié Fall député Déthié Fall mi nga xam ne mi ngi bokkoon euh, ci ci réew mi bu ñu jàng ci taskati xibaar yi ñu wax ne buñ àggee ci dimanche ak jàmm mouvement waaye tamit nar a jël yoonam ci wàllu politique euh, lan moo ko waral waaye tamit lan la ñuy xaar ci mouvement boobule dinañ ko boole ci li nga xam ne moom la ñu nar a waxtaanee bu ci kanameek jàmm ak euh, suñu gan. ni ñu koy defee tey ci ngoon gilee ñuy ànd ak Issa Tine ci présentation bi Issa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha di nuyu mbokk yi seetaan. mu mel ne ci Vidu Net lan lañ tànn di ko waxtaanee a tey ñu fas yéene waxtaanee mbiri Freedom House moom li nga xam ne nee nañu réewum Sénégal euh, daal dinay mu di rek ñi bi nekk ci wàllum démocratie loolu nag askan wi ku ci nekk ni ñu ko gisee ndax gis nañ sax mhm. daanaka coow loo xam ne jur na ko ci internet bi nguur ak i Sall naka lañ ko jugé ci mhm. wàllum liberté ak démocratie loolu dinañ ko fas yéene waxtaane ci biir euh, Virunet ak article boo xam ne waa Walf Net ñoo ko bind euh, balay euh, booba moom maam Biram Wàcc mooy njiital Walf Net sax ni nga koy defee talaata bu nekk ñu ñëw ànd ak moom ci waxtaan wi maam Biram maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm maa ngi lay nuyu Moustapha di nuyu ñu bokkal plateau bi di nuyu sénégalais yi ñu bokk na ci Georges Nesta Diop chroniqueur politique ci ci Walf TV ak Walf Net Georges nuyu naa la. naa euh, la fay Moustapha nuyu tamit suñu naataange nekk si plateau bi ak Sénégal lu ñu seetaan. suñu gan tey docteur Ibrahima Ndiaye enseignant ci université Cheikh ante Diop bu Dakar waaye tamit bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak Déthié Fall war a lancer seen mouvement dimanche lañ wax ne ci lañ ko war a def incha allah euh, sëñ bi Ndiaye nuy nañ la dalal a jàmm. maa ngi fay Moustapha. mbaa reer nga soog a ñëw. Ah, ñu reer ñoom <laughs> baax na incha allah ci kanam ak jàmm dinañ ànd ak yow ngeen wax ñu seen boobu le lan ngeen ci nam waaye lan moo ko tax a jóg lan moo euh, nar lan la ci sénégalais yi mën a xaar euh, ci kanam ak jàmm lay doon ak waxtaan woo xam ne di nga ci jàkkaarloo ak Issa Tine docteur Ibrahima Ndiaye balay booba maam Biram wàcce ci yow la ñuy dooree suñu waxtaan yàgg nga de dinaa ko fàttali lu bari di topp politique gu Sénégal nan lay doxee ak njiit yi mu mel ne jamono yi daf ci am benn discours boo xam ne dañ ko ci commencé di dégg du woon sax lu bees ndaxte yàgg nañ ko wax mais dafa gën a fes fen yi mu di tubaab tuddee discours ethniciste pour yow lan moo war a waral ci réew mi jamono ji ñu toll euh, nit ñi bëgg a commencé di fi yëkk ci wax ju ñu mel joo xam ne Sénégal mosu ko miin quand même. c'est vrai que depuis un certain temps ñu ngi noté que genre discours boobu mu ngi revenir de plus en plus sur discours politiciens yi. Mm donc comme nu nga ko waxee ce n'est pas nouveau. donc loo xamante ne ni Sénégal yàgg na ko dund la. Mhm. mais li ci garaaw mooy que fan yi ñu toll nii wax jooju dafa rawati. waaw euh, xam nga dañu toog barki démb ñu ne déglu nañu le ministre de la justice. Mhm. mu def benn meeting fële sa dëkkam di fa wax alpulaar. Mhm. am wax yoo xamante ni wax na ko fa. Mhm. donc loolu di dimanche ñu xëy la lundi journaliste bu mel ni ma jambal Diagne bind beneen texte. man sax texte boobu wax dëgg yàlla liiruma ko woon. ba sànq si ngoon. lañu ma ci interpellé ci laa dem xool ko. Hmm. parce que man ma jambal dama bàyyi woon a lire ay textes am depuis bu <laughs> yàgg. depuis parce que. <laughs> Euh, man dama bëgg journaliste booy bind. Hmm. li ngay bind nga am foo ko teg. Hmm. pas que si ngelaw li pas que si contre nga nit. pas si que nga da nga ngay def pour neexal nit. te dama seetlu ne article bu mu mujjee bind si euh, Serigne Modou Kara. ci laa ne. chronique bu Madiambal yi daal bu ma ko kenn joxati quoi. lu mu bindoon ci sëñ Modou Kara moom parce que sëñ Modou Kara. Mhm. Mhm. nañu les centres de détention mhm. moom tant que journaliste mu ne dañ ko yeex a def parce que yu ko gën a garaaw amoon na fi. ma ne donc yow un journaliste boo xamante ni tu as des informations. dara terewul koo bind. nga toog ba situation bu garaaw am ba sénégalais yëpp tey seen gémmiñ. nga bind ne ah lii gisoon naa ko muy ñëw parce que am na yeneen ak yeneen yu ko gën a garaaw te. même sëriñ bi moo ko doon def. Mhm. donc mu nekk benn euh, discours subjectif boo xamante nii man dama jàpp ne. wax dëgg yàlla journaliste boo xamante nii mhm. da ngay woote dimension moom bu mu am waroo koo bind ba euh, texte bu ma lay wax sànq bu ma ko liiree vraiment j'ai eu du mal ma jeexal ko. mais mais justement parce que euh, ñi ngi wax euh, texte bi texte bi tey réseaux sociaux yi foo tourner gis ñuy wax le texte Madiambal texte Madiambal. Mhm. mais dinay baax quand même ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan te certainement amuñu chance mën ko lire en français comme ni nga ko amee lire. Mhm. ñu xam e-, exactement euh, le ministre moom li mu wax dégg nañ ko. Mhm. Georges dina ci ñëw léegi mais Madiambal lan la wax exactement lan la bindu bi waaw xam nga ci biir texte bi. pour résumer la ko un peu rek les grandes lignes. wax na si ne waa MFDC. ñoo jóge Casamance. MFDC génn ga bu génn ga. Mhm. mouvement rebelle bi. ñoo jóge Casamance. ñoo infiltrer manifestation manifestant yi fii à Dakar loolu moo taxoon mu bëri euh, violence bu ci am. Mhm. Euh, nee na tamit. Mhm. Euh, ku mel ni ministre Assome jaata ministre du commerce ministre du commerce dañ ko interpellé ci affaire viol bi. mu ne du ci tontu parce que Sonko mbokkam la. ah waaw mu ne tamit. ci biir texam bi. Mhm. boo seetloo ñi nga xamante ni ñu ngi leen doon attaqué à Ziguinchor. Mhm. mooy les nordistes. nordiste maanaam ñi dëkk. ñi dëkk Fouta. Ndar Louga et cetera. waaw mu ne ñi dëkkul Casamance ñi dëkkul Casamance ci kaw Gambie rek ci kaw Gambie voilà. donc mu ne ñooñu lañ doon attaqué en plus. Mhm. beneen wax bu mu wax mu ne. Casamance ñi nga xamante ni ñoo soutenirul euh, Ousmane Sonko. mooy ñi bokk ci yeneen xeet yi maanaam pëlier ak mankaay yi. xam nga yow léegi boo boo waxee ne. Mhm. joolaa yi ñu ngi ànd ak son Sonko ñu ànd mankaañ yi ak pël yi ñoom ñoo àndul ak moom. Mhm. yow yaa ngi créé une division. yow yaa ngi créé. te te loolu la bind nga liir. mais bien sûr loolu la bind sénégalais yëpp comment ñu bëri commentaire. ko ah, mais ma jàmbal bi waroon na fekk mu mu jàkkaarloog àttekat bi quand mais bien sûr pour pour ñu xam exactement li wax fan. extraordinaire parce que tey jii nii Moustapha li nga mhm. xamante nii moom bind na ko bu doon yow yaa ko bind. wala man wala keneen ku bokk Walfadjri mais hmm. balaa ngaa balaa ngaa fanaan tey. yow yow nañu la di nga di nga jot <laughs> alors euh, euh, euh, Georges Nesta Diop quand même c'est c'est très grave li ma bi na wax ne moom la ma Madiambal bindu te maa ngi doo comprendre lan moo tax ci ngoon ba léegi réseaux sociaux foo tijji même les confrères commencé di ci di ci wax mais ñu ñu taxaw ci leen d'abord mooy. su waxee ne le MFDC ñoom ñoo jugee foofu la ci Ziguinchor infiltré manifestation amoon Dakar mais est-ce que mënuñ ci gis une faillite des force de sécurité au Sénégal su ñu xamee ne depuis que le compas du conflit casamançais Babacar Diagne Ndiaye daf koy rappeler lu bari li Sénégal ma a réussir li armée au Sénégal mas mooy contenir ko je même pas à Ziguinchor mais dans une période dans une euh, euh, zone vraiment limitée. Mmh. de de Ziguinchor pour ne pas dire du Sénégal tey ñu wax ne ñëw nañ ba Ndakaaru bokk ci ay manifestation su fekkee ne li mu wax am na c'est la fait quand même de nos forces de sécurité. oui mais je dirais d'abord que rek Madiambal dafa reprendre rek li euh, li ministre de l'intérieur waxoon fii ak ministre justice euh, jaaraat si mhm. mooy que manifestation yi amoon Sénégal du seulement waa du du sax ay militants Sonko mais c'est des forces occultes mhm. des forces extérieures des terroristes lu nekk wax nañ ko fii mhm. et d'ailleurs je crois que mu looloo tax démb certainement que euh, Ousmane Sonko liir na sax lu ma jambal bind démb moo tax mu yaakaar ne parce que bi ma ko liiree effectivement bi ma liiree texte euh, ma jambal dama ne ah li mhm. moo tax kon Ousmane Sonko ne dina am beneen complot bu ñëw boo xam ne on va am euh, attaquer sur le terrain du terrorisme effectivement loolu bu fekkee ne ni ko ma jambal bindee noonu la amee je me dis donc les forces de défense et de sécurité du Sénégal euh, wàcc nañ seen yoon te nekkatuñu xarañatuñu comme nu ñu leen xamee woon à travers la sous-région. Mhm. parce que nee na dañu c'est des militants yooyu c'est des c'est des gars du MFDC yooyu yoo xam ne. Mhm. Gambie leen jëlee indi indi leen fii. indi leen Dakar. te nee te nee na bi manifestation yu passé ñëpp gis nañu leen ñuy dugg ay bus ci garage yu marché nekk fii ci Dakar. Mhm. di dellu fu ñu jóge woon. mu ne gis na leen ñu ñu jël bus bi bi manifestation bi passé bi gis nañu leen fii si garage ñu wax garage Casamance fii si Dakar xam nga gën nañu waaw mooy demee noonu voilà mu ne gis nañu ay jeunes ñoo xam ne xam ne leen ñu dugat jëlaat bus di rejoindre di dellu fu ñu jógee donc je crois que donc loolu c'est extrêmement grave je crois que Euh, ministre de l'intérieur war na ko woo ne ko yow. Hmm. jox ñu sa information lan moo la fan nga jëlee information yi parce que hmm. tamit. bu fekkee ne am na ñu leen xam ñooñu. ñoo hmm. xam ne gis nañ leen ñu jël ay bus. c'est extrêmement grave waroon na leen mën a identifier. et puis comment on les a identifiés pour xam ne ñii si manifestation ñu bàyyi leen ñu dellu ka dellu. Gambie wala. bonne bonne question donc là là quand c'est extrêmement grave. et que donc. Euh, <laughs> loolu mooy bàyyi ba jaan bi dem ngay dóor si kii bi. Mm-hmm. parce que là quand mënoo affaire yu amee dool noonu ne quinze morts. au mm-hmm. Sénégal en trois jours des milliards pillés comme ça. ngeen mën identifier ñu ko def. te kenn mënul jàpp jàpp si kenn sax wala bon c'est vrai qu'on a des gens. Mm-hmm. mais est-ce que ñu jàpp ba pare. parmi euh, yu ñu arrêté nii durant ces manifestations yi. Hmm. identifié nañu ay éléments du MFDC. c' est vrai que dégg naa ñu naan bon y' a même euh, yoo xam ne c' est des étrangers mais xam nga benn étranger rek par exemple. benn hmm. benn malien wala benn euh, je sais pas quoi. Hmm. mënoo ko jàpp rek daal di conclure ne kii terroriste la wala il fait partie des forces occultes. ça c' est trop léger comme argument. te tamit gis benn waay parce que man am na ku mu wax si taw manifestation yi. envoyé benn vidéo ne ma déglul kii bu baax d'ailleurs déggul déggul déggul olof. Mhm. mu ngi lakk français. amul fii manifestation bu mën a manifesta bu jógee Sénégal Dakar fii nekk Dakar. Mhm. te mënoo làkk quand même deux mois en wolof. mais ça aussi c' est un raccourci très dangereux. très dangereux. mais rek voilà parce que ñi ma dégg ñuy exprimer wu nu ñuy làkkee lii du euh, c' est pas des Dakarois. Mhm. ça c' est quand même extrêmement dangereux. le le, Et... le danger quand même euh, euh, mooy su fekkoon ne beneen journaliste moo ko bind maam Birame Wathie wala Georges Nesta Diop heure bi fekk na leen ñu lijjanti seen i mbir. Hmm. mais mais mais quand même que quand ça vient de ñu bari dañ naan oui c'est c'est un proche du chef de l'État qui qui assume euh, ak le chef de l'État euh, su bindee lu mel noonu est-ce que du loolu mooy le danger parce que ñu bari naan comme bind na ko am na fu ko am na fu mu ko jëlee ñu am na ñu ne naar bu ndaw lu mu wax ca. xayma xayma ba la ko déggee. est-ce que est-ce qu'il les autres ministres pensent tout bas. voilà. waa xam nga ma euh, euh, Madiambal li koy particularisé comme nu nga ko waxee. Mhm. proximité ak président Sall la. oui revendiqué na amitié wu. oui président la république ne xaritam la. xaritam la souvent bu bindee nit ñi dañuy liir di jàpp ne Macky Sall la ñuy liir. Mhm. mais eh, non Madiambal Diagne. oui te comme nu Georges wax sànq. Mhm. Euh, am na ay ministres yu def. des déclarations yoo xamante ni sénégalais yi doon nañ xaar ñu leeralal leen lan la ñu bëggoon a wax ci biir. oui de discuté nañ ko fi defe naa mardi passé. Mhm. doon revenir ci force occulte yooyu ñu doon kii. Mhm. tey jii nii bu nekkee ma jàmbal moom. ñooñu dañoo junj ay force mhm. moom mu nekk ki nga xamante ni moom moo war a définir force yooyu. yaakaar naa ne parce que ñoom dañoo junj. dañoo junj waaw xam nga quand on parle de de de terrorisme. de force occulte. Mhm. ñëpp naan non ministre bi il est totalement passé à côté lu muy wax maîtriser wu ko et tout ça. Mhm. ma jàmbal bind un article. moom ak nu mu jegee le camp présidentiel pour mm-hmm. expliquer ne force occulte euh, bof expliquer wu ko noonu mais yow mën nga xalaat ne xëy na ñi ñi ñii force occulte yi ministre yi doon wax xëy na mm-hmm. moom ñu lay jéem a dur na ci euh, baaraam comme on dit expliquer mais Moustapha du man duma bëgg un peu ñuy joxoñ baaraam tuuma les force de l'ordre ndax waxuma jambal man dama jàpp ne waxuma jàmbal jarul sax nga si dóor sa doom ba siy accuser mais tegu ko fenn xam nga c'est des arguments yoo xamante ni mhm. ça ne repose sur rien du tout xam nga ce qui aurait été sérieux mhm. professionnel mooy que ci manifesta ci manifestation yi bu mu jeexee mhm. jàpp nga deux à trois personnes yóbbu nañ leen euh, jàpp nañ leen yóbbu nañ leen commissariat mën nañ une enquête mhm. on a trouvé que kat ñii c'est des éléments du MFDC loolu moo doon gën a cohérent wax ne lii ak lii am na mais boo jekki-jekkee rek nga toog di xalaat parce que yow effectivement war nga bindal président de la république loo xamante nii mhm. mooy justifier difficulté yi nga xamante ni am na ko pour mën a canaliser les sénégalais mhm. parce que en réalité loolu la fi ñu toll nii ñoom ñi nga xamante ni war nañu président lu ñuy bañ nit ñi jàpp ko mooy que sénégalais yi ñoom ñoo ni ko euh, français yi di waxee désavouer le président maanaam ñoo ko bëggatul. léegi ñoom te ñu génn c'est des sénégalais bon teint. très bien euh, sénégalais ay alpulaar ay ay wolof ay joolaa ñoo génn exprimer wu. tout à fait les sénégalais. oui les sénégalais sénégalais S majuscule. léegi nag ñoom. Mhm. xam nga un président qui en exercice bu ñu toogee ba ne il est désavoué par son peuple. Mhm. mais c' très grave d' autant plus que def nañu il y a même pas deux deux deux ans. Mhm. président Macky nee nañu gagné na élection yi à cinquante pour cent. quelqu'un qui gagne une élection à cinquante 58 pour cent mhm. moins de deux ans après tout le peuple sort pour te dire que vraiment on ne veut plus de toi donc euh, situation boobu dafa nag situation boo xamante ni c'est inconfortable mhm. te ñii nga xamante ni ñu ngi wax ñëpp euh, wër président de la république ñoom li nga xamante ni moo leen tax a jóg l'objectif visé mhm. mooy que ñu expliquer ne son ne sont pas les sénégalais qui étaient mécontents mais dafa am ñu nekk seen biir ñoo xamante ni euh, nu mu tuddee li président de la république di doxal neexu leen pour des intérêts de telle ou telle zone neexu leen loolu moo tax ñu jóg manifester te yaakaar naa ne ma ma jàmbal loolu ma expliqué noonu on aura pas besoin de def décryptage mm-hmm. xale bu ndaw boo génn si biir dajeeg moom ne ko ay waa Casamance ñoo fi ñëwoon di manifester dina la ne ki wax loolu day wax d'accord alors waxul dëgg forcément euh, Georges bu ñu waxee des éléments du UFDC ñoo infiltré manifestation yi ça fait peur mais xëy na li nga xam ne moo ñu war a gën tiitloo ci bindu ma jàmbal te Georges ñëw ci léegi mooy su demee ba ne le ministre du commerce membre du gouvernement quand même Aminata euh, euh, Assom Diatta condamné wul ce que euh, li ñuy taqal Sonko parce que mbokkum joolaam la ba pare wax ne ñi ñi euh, ñi doon le juge mu ne le juge du huitième cabinet dafa bàyyi dossier bi parce que moom tamit nee na mbokk Ousmane Sonko la d'accord alors boole ci les nordistes les pël les nangam ak nangam ak nangam le euh, njaago ànduñu ak euh, Sonko euh, parce que nangam ak nangam mais là on est vraiment dans le discours ethniciste oui et puis y a, plus à fuir le débat. c'est ça effectivement. vraiment je crois que dans tous les dans tous les textes de Madiambal je crois que tout comme aussi li ministre bi wax euh, barke démb si week-end bi fële à Matam. Mhm. ce qui est regrettable mooy loolu. c'est-à-dire le discours ethniciste. qui prend de l'ampleur ici au Sénégal en tout cas et ça c'est depuis ba Macky Sall nekk fii. oui parce que euh, Senghor nekk na fi séeréer. Mhm. pendant combien d'années. mais mosu mosuñu dégg ne séeréer yaa ngi nii wala kii wala. kii dañ ko def ministre parce que. ñu ko doon woteel sax li leer séeréer la. Mhm. Abdou Diouf ñëw euh, nekk si nguur gi. alors Abdou Diouf sax kenn xamul woon ne ndax séeréer laa joolaa xaw ma tukk li xamoon si moom daal mooy Louga la Louga la dëkk Louga la yaroo mais à part ça même diineem fu mu far sax boobu ñu bëri xamuñu ko woon mhm. donc euh, Ablaye Wade ñëw Ablaye Wade je crois que euh, erreur am bu mu mën a def si côté boobu mooy peut-être nu mu demee woon ba. Euh, comment dire revendiquer sa mouridité comme on dit revendiquer sa mouridité nëbbu ko fësal ko ba ñëpp xam ko. Hmm. kooku fa la yem. parce que waxul ne olof laa waxul ne fii laa juddoo waxul ne fële donc mais donc c'est pour dire que. Hmm. vraiment je crois qu'il est temps que le président Macky Sall ak ñu mu àndal se ressaisissent. xam que ce Sénégal la c'est un Sénégal un indivisible. Hmm. donc du problème mu ethnie moo ko war a moo ko war a yàq donc on on doit dépasser euh, stade boo xam ne. bu ñu nommee ministre ak ñu xool chaque mercredi ñu xool conseil des ministres waaw kii de nii la sant kii nii la sant kii fi la dëkk kii fi la dëkk loolu c'est déjà ça sape l'unité nationale et ça c'est dans gën a di sax si euh, bopp sénégalais yi ensuite bu fekkee ne loolu moo si am ba pare am ay kilifa yoo xam ne dañ si euh, xëppkaan yi mhm. euh, loolu ça devient extrêmement grave pour pour le Sénégal encore une fois te lu lu Madiambal bi ak yeneen ñeneen wax ko mais ñooñu xanaa xamuñu ne boo demee euh, Ziguinchor en tout cas Casamance boppam mais am na ay séeréer boo moytu sax joolaay ñoo fa minoritaire boo calculer ñëpp ñu fa di nga peut-être ay jaata ak kii joolaay ils sont une infime partie. di nga fa hmm. fekk ay pël di fekk ay. c'est ça le charme du Sénégal voilà toutes les ethnies Casamance c'est c'est vraiment euh, hmm. euh, le Sénégal en miniature. Hmm. ñëpp ethnie yëpp a ngi fa. di nga gis di nga gis séeréer bu sant Diop comme man. fekk moom ma gën a dégg joolaa te boo ko waxee sax joolaa nga séeréer nga mu ne la non bu ma ko waxati man séeréer kii eh, boo ko waxee ne jo séeréer nga mu ne la non non dama sant Diop rek waaye eh, joolaa laa donc c'est à dire que ça c'est des accusations un peu fallacieuses tirées par les cheveux maintenant nga wax ni am na kilifa yoo xam ne dañoo dëkk Casamance bi affaire bi tàngee dañoo euh, jël seen euh, téléphone def ko mode avion ba gars naan sax ñoom ñëpp ministre yëpp ak DG ñu ngi nekkoon si biir avion yi. Mm-hmm. Euh, y a que quelques ñoo ko doon si te na si ay ay tur mhm. mu ne day sax ñu ko doon défendre noonu sax mhm. boo xoolee ba xool ba si biir du ñu ay joolaa ñi ay ay ay ay pël lañu keneen ki nekk keneen ki nekk manjaan mais là ça déborde donc là mais ñeneen yi yëpp euh, dañoo dañoo waaf mhm. def def lu moor bàyyi bàyyi Macky Sall moom kenn mu jàkkaarloog manifestation manifestant yi alors que alors que euh, am na si ñoo xam ne explication yi ñuy joxe pour euh, jël leur distance par rapport à, à ça c'est des c'est des c'est des euh, c'est des raisons qui sont euh, évidentes te ni xel mën ko nangu juge le, le juge du cinq sec Mamadou mhm. Seck mhm. moom dafa ne man suma jabar joolaa la kon man vraiment je ne me sens plus à l'aise avec cette ce dossier là. Mhm. loolu tamit xel man na ko na c'est nit nit mën na ne tamit euh, voilà loolu loolu c'est c'est très léger fonctionnaire la fu ñu ko affecté wala lu ñu ko jox def ko wala jël. c'est mhm. son droit c'est son travail di ko war def mais tamit. atte dara daa fekk tamit nga gëm li ngay atte mhm. nga wax sa diggante ak yàlla looy atte te xam ne yow euh, tu n'as pas la conscience tranquille mhm. bu yeboo nga bàyyi ko d'accord alors am na si ay ay beneen nit yu mu cité comme euh, ancien euh, l'ex de président du conseil départemental mhm. une certaine Gnima Goudiaby kooku fu mu dëkk koñu koñ ñoom Sonko la daanaka donc kooku rien que pour des raisons de sécurité. Mm-hmm. mais parce que yow mënoo dëkk foo xam ne. Mm-hmm. dañ fa dañ fa nit ñu ñu fay rey ñu say compte ñu fa rey. kon mm-hmm. dañ naan vive Macky Sall dafa bëgg. mais mais c'est c'est tellement vraiment biram que. la la la même les journalistes. Euh, que nous sommes arrivent sur oui sur certains dossiers on te conseille de ne pas l'évoquer parce que mais voilà cest que donc dans cas-là. même un journaliste du dem di interviewer rakam wala. wala papaam oui c'est interdit ça ça c'est la déontologie et même yow nga nga mën ko war ko bañal sa mhm. donc euh, si un man ma nekk responsable euh, sudiste dëkk euh, Ousmane Sonko wala su ma jabar nekk sudiste mhm. mën naa ne bon pour des pour des raisons bien personnel man du ma dugg si dossier bi. Mhm. mais loolu ça ne veut dire que dama koy supporter wala dama koy je ne sais pas dama dama war président Macky Sall. c'est juste pour avoir la conscience tranquille ne ko tubaab di waxee. Euh, Mame Birame est-ce qu'on n'est pas en droit quand même d'attendre du chef de l'État qu'il euh, mu la fin de tout ça. Mm-hmm. Euh, parce que c'est vrai Macky Sall mosuñu ko dégg en tout la man mosuma ko mm-hmm. mais là c'est son entourage proche vraiment très proche. Mm-hmm. ñoom ñooy wax ci loolu est-ce que c'est pas à lui de mettre fin à tout cela. su fekkee ne voilà. mais man je ne je pas que le président d'accord aussi. Mm. parce que ce qui s'est passé. mooy que les les les les les les responsables de l'APR ñu si bëri bokk ils ont été reçus par le président de la République. Mmh. juste avant le week-end. vendredi avant ñu dem meeting tout à fait entre entre le jeudi et le vendredi. Hmm. ci recevoir les responsables de Benno Bokk Yaakaar et tout ça c'est après ces rencontres la que les responsables de l'APR se sont dispersés dans les régions ku nekk dem fi nga dëkk di fa wax njaaxum parce que Madiambal Diagne moo ci fës ak le ministre de Malick Sall de, de la justice mais le ministre euh, Abdoulaye Seydou Sow mm a dit exactement la même chose euh, le député Dembourou la Dembourou Sow Dembourou Sow il a dit la même chose mm -hmm. euh, euh Ngom il a dit la même chose ñooñu ñëpp seen particularité lan la mhm. ñoo bokk ak président même ethnie mais c'est ça léegi nag ñoom en tant que pël puisque ñemewuñu tenir le discours loolu boobu mhm. il faut quelqu'un comme Madiambal qui vient dire ça léegi nag loolu mhm. objectif lan lañ si jublu. wala lan lañ si jublu. c' la grande question. parce que c' est un sujet extrêmement sensible ñoom ñu ciy dem avec une légèreté mais extrême extraordinaire léegi. parce que là la on aurait enfin doon nañ comprendre su fekkee ne opposants yi comme ñoom Ibrahima ak ñooñu dinañ ci jëw léegi ñoom ñooy wax loolu mais que le pouvoir ci boppam di ko wax. man je comprends pas franchement su fekkee ne yéen am ngeen ci xam-xam ngeen wax ma ah non en tout cas ñoom lan lañ si jublu hmm. jaxase sénégalais yi pour les mettre en mal lan lañ si jublu loolu c'est la grande question hmm. parce que ku mel ne Madiambal mais mënul ñàkk a xam ne ay dëkk yu mel ne Rwanda lu muy wax nii moo ko taal ba ñu naan ay huit cent mille morts dafa am un million soixante-quatorze mille morts donc donc moom en tant que intellectuel xam na ne lu muy wax nii hmm. mën na am ay conséquences yu dangereuses léegi nag lan moo koy wax lan moo ko koy tax a waxloo man je ne ma toog nii ma xalaat ne ñoom fi mu toll nii seen objectif mooy que ñu jaxase sénégalais yi ba ñu reyante parce que déjà ñu ngi naan treize morts tëj na suñu bopp fan la ñu jëm moom ñoom ñuy gën a xamb taal bi au moment où hmm. les chefs religieux hmm. tout le monde appelle à à à la paix et à la cohésion très bien docteur Ibrahima Ndiaye may fàttali ne yaa ngi bokk ci ñi ànd ak euh, député Déthié Fall war a lancer seen mouvement dimanche bi ñu jëm dinañ ñëw léegi ci le rapport Freedom House mais dama ma bëggoon a dégg rek si euh, li fi Georges ak Pape ak euh, Mame Birame waxtaane léegi lan lañ war a xaar ci le chef de l'État état du Sénégal mi nga xam ne moo moo njaboote Sénégal gépp si moment yu mel nii. damay damay fàttali benn benn mbir rek. Mhm. Euh, Moustapha dëkk bi suñu réew mi am na au moins 60 ans. oui ñi ñu topp ci plateau ci plateau bi am nañ génn lu mu mooy au moins que ça ku ci gën a néew ci at am na un quart de siècle. Mhm. ci 60 ans. Mhm. lii guddee la def ci réew mi mais dañuy faral di wax ci olof béy du gëmal gën. Baydu gëmal gën. waaw mooy lan fu mu ko fekkee da koy fël pour xam lu ci ne. pour xam lu ci ne. li xew daf leen yéem.